dalli nag jàmm fukki junni ci ay moustiquaire ak juróom-ñett lañu doon séddale ay daara ci diwaanu Kaolack bëgg jot nag lu toll ci fanweeri junni ak juróom ci ay nit ñu wekk ko ci ab campagne bu ñu duppee un Dahra sans palu te programme national de lutte contre le paludisme PNLP di ko amal docteur Doudou Sène nag mu ngi nakardu li ñuy jël sànq yooyee di ko jaay ci marché bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro bi Rama Ndiaye ay sànq yu waroon séddale fii ci euh, Kaolack tey ñu ñëwoon fii ci Ndorong léegi nag ñu fas yéene séddale ay sànke toll na ci pratiquement dix huit mille moustiquaires yoo xam ne dañ koy séddale ci une population environ trente cinq mille bénéficiaires fii nga xam ne mooy euh, euh, Kaolack. loolu nag bu ko defee tànn bi dañ ko tànn parce que Kaolack dafa bokk ci gox yi nga xam ne si bi daf ci gën a sonal nit ñi rawatina commune nu raison pour la laquelle bañ ko defee daaw fële ca Tivaouane mu réussir seddale sànke yi ci daara yi dañ dañ koy jëlaat indi ko fii partenaires yi nga xam ne ñooy USAID PMI à travers ONG bi nga xam ne mooy Evolve bi ñu ci gunge ñu def fi liggéey bu mucc ayib ak médecin chef de district ak région médicale ba nga xam ne lépp luy daara fii ci Kaolack xam nañ fan la nekk xam nañ ñaata nit a fay jàngee ñu profité ci nag pour ñëw am base de données boobu pour képp koo xam ne tey jii am nga yéene liggéey ci daara dinga nga am euh, jumtuwaay yooyu di nga xam ñaata daara fi nekk ñaata population ñoo fi nekk di wax aussi que ne euh, liñ wax sànq mooy sibiru mënuñ ko te ñeneen ñëpp jàppuñu ci moo tax ñu lancé appel ci nga xam ne ñooy collectivités territoriales yi mairie yi ñu war a am benn bataaxal boo xam ne ab jumtuwaay boo xam ne mairie bi dafay impliqué parce que Sibiru munoo ko taxalikoo te taataa ndox yi dañu fi donc il faut impérativement yeneen secteur bokk ci pour que Sibiru bu joge fi jaadootul nit di faatu fii nga xam ne ci Sénégal ci Sibiru parce que xam nañ nan lañ koy moytoo xam nañ nan lañ koy fajee sa bu tàngee demal ci hôpital ñu defal la test ñu faj la mais téye sa doom ba yàlla def mu jël ko loolu tamit jaaduwul dogal yàlla am na mais loolu tamit jaaduwul mu am beneen mbir moo xam ne dañ koy faral di seetlu mooy jaay moustiquaire parce que man mënuma euh, d'accord ay nit euh, jóge ci beneen réew ne dañuy jàppale suñu réew ci ay sànke wala ci beneen domaine ay nit di ko jël di ko jëfandikoo di ko jaayi pour man loolu jaaduwul wax dëgg fa yàlla loolu nag appel la boo xam ne dañ koy def képp koo xam ne yaa ngi ci nga bàyyi ko ba mënta ñëw jàppale état li nga xam ne moom lay def comme ni ko bitim réew di defee wax dëgg fa yàlla suñu sarax si ñu bàyyil ñu ko moom. ci Kaolack la ñuy desandi ci wàllu couverture maladie universelle ndax ci atum 2022 am na taux de couverture boo xam ne toll na ci 37 virgule 38 pour cent maanaam ci téeméeri nit yoo jël ci askan wa fa yeewoo fanweer ak juróom-ñaari am nañu couverture maladie universelle CMU nag dafa nekkoon ci sensibilisation ca diwaan boobile ba tax responsable des relations publiques bu agence nationale de la CMU muy alifal di xamle ne Kaolack am na ab taux de pénétration ci wàllu mutuelle de santé boo xam ne buñ ko dee xayma toll na ci 83 virgule 72 pour cent yokk ci di yëgle ne am na ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróomi séance hémodialyse yoo xam ne jagleel nañ ko ñeent fukki nit ak benn jaatum 2022 junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti césarienne amal ko it ci diir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 Bonjour chers auditeurs, 18 000 moustiquaires ont été distribués au Dara de Kaolack pour une population cible de 35 000. C'est dans le cadre de la campagne Un Dara national de lutte contre le paludisme a initié. Le docteur Doudou Sène déplore toutefois le fait que ces moustiquaires soient vendus sur le marché. Il est au micro de Ndiaye. un choix qui n'est pas fortuit parce que portant sur une, la base épidémiologique du paludisme ici au Sénégal, on a vu que les personnes les par rapport au paludisme étaient les enfants euh, qui sont d'âge mais également les femmes enceintes. Mais quand on regarde également la répartition du paludisme au Sénégal, Kaolack pèse un peu balance. Rien que l'année dernière, en 2021, on était à 11 000 et quelques cas, mais en 2022, il y a eu une augmentation presque développé. Raison pour laquelle, avec l'appui de PMI à travers l'ONG Evolve, nous avons procédé, après une expérience qui a réussi dans les Dara de Tiawan l'année dernière, on a porté le choix sur ici à Kaulak. Et aujourd'hui, on était là en présence des autorités administratives et des autorités coutumières pour procéder au lancement de la distribution des moustiquaires destinés aux Dara. C'est plus de pratiquement 18 000 et quelques moustiquaires destinés à une population environ pratiquement de 30 et quelques mille. Après un recensement

dire, pour moi, c'est inadmissible que des partenaires puissent amener des moustiquaires et que ces moustiquaires se retrouvent dans le marché. Donc c'est un appel que je fais à quiconque qu'il est dans ce circuit-là d'arrêter et nous ferons le nécessaire pour traquer ces gens-là. Mais effectivement, la santé compétence transférée, il est impératif à toutes les collectivités territoriales du Sénégal de s'impliquer, pas seulement dans le domaine de la lutte contre le paludisme, mais dans tout ce qui concerne la santé des populations. qui a enregistré en 2022 un taux de couverture des mutuelles de santé de 37,38% dans le cadre de la couverture maladie universelle. La CEMU était en tournée de sensibilisation avec les correspondants régionaux de Kaolac, le responsable des relations publiques de l'Agence nationale de la CEMU Alifa a également fait savoir qu'un taux de pénétration des mutuelles de santé de 83,72% a été noté dans cette région où 4805 séances d'hémodialyse pour 41 personnes ont été réalisées en 2022 et 1078 césariennes effectuées sur la même période, dans le département de nioro C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.